affaire Sweet Beauté bi pour yow amul benn fondement. non affaire Sweet Beauté bi am nga moi j'ai toujours man je fais peut-être partie au départ des des personnes qui avaient fait un poste pour soutenir euh, Adji Sarr en tant que femme ndax nag en tant que femme je pense que dañu war a di serrewu les les bi di euh, et on devait croire un peu la version jusqu'à ce que ñu am loo xamante ni xëy daf ñoo leer. wala loo xamante ne daal suñu xel dalu ci et je fais aussi à l'époque des gens yi nga xamante ne première fois bi affaire bi amee je pense en février la woon premier début vers le 25 euh, ma posté woon ci sama phase bi ne problème bi dafa war a interpeller ñëpp parce que il n'y a pas de petite querelle dama inspiré woon ci Hampâté Bâ li mu doon wax il n'y avait pas de petite querelle querelle bi responsabilité sénégalais yi la pour. ku ci nekk nga intervenir euh, oh affaire yi di dem di dem ba finalement ñu nee ñu euh, amul viol euh, xaw ma corruption de jeunesse mm-hmm. corruption xaw ma de la jeunesse moo am mm-hmm. bon donc loolu tamit dafa nekk loo xamante ne c'est assez complexe waaw parce que ñun ñëpp ñu ngi doon xaar le viol mais au fur et mesure affaire di avancer je pense que Euh, sénégalais yi ñu ci ëpp en tout cas ñu ngi doon douter véritablement de l'existence d'un viol. donc yow. donc moi. Mhm. donc moi moi dès les premiers mois peut-être mois de mars bi après analyse je me suis dit que cette affaire ne pas claire xëy na nag relation euh, boo xamante ni ay nit am nañ ko ñoom ñaar rek a xam parce que nag ay nit yu nekk ci néeg ñoom ñaar rek a xam lan moo fa xew donc moo tax vraiment euh, après avoir soutenu quand même Adji Sarr en tant que femme dans toutes les circonstances j'ai décidé en tout cas de euh, comme ni koy gars wax de donner ma langue